ñoom a euh, bokki internet yi bu ngeen gisee jataay bi xam ne dañoo jóge woon ci bés bu mag doon rendez boo xamante ne nii ñaari ndaanaan waroon cee teew muy face to bu mag boo xamante ne nii na mu mujj jeexee ko ne teg na ci bët ku neex gis nga na mu demee jataay bi nag doxoon ci diggante Tapha ak euh, Boy Niang ñu waroon def face à face le bi ñu génn Boy Niang jot na ñëw Tapha ñëw na mais ñi gis ne seen fans club yi dañu fa xeex sànni fa ay xeer toj fa ay oto ñëpp gis nañ na mu demee li wolof naa nag bu ndoxtu tuuroo an bàq moo ci des ki woote woon loolu yitteelu ko loolu tax ko woon a jóg ñaari mbër yi ku ci ne loolu tax taxutoon nga jóg te kenn xamu leen ci violence mais nag bu sa njaboot yàqee day mel ni yow yaa yàq ndax yow yaa waraloon mbir mi tey boo gisee kii jàkkaarlook nun di El Hadj nga xam ne mooy manager général Tapha Tine ay at a nii moo ànd ak moom di défendre ay intérêt ki ci des di Bourkhane Wade nga xamante ne ni moom it papa la ci booy Niang di manager ñu dajaloo nag fii ci Leewtoo nga xam ne ñooy promoteurs yi donte site la ñu mais nag dañoo organiser bokk ci euh, développement wu dëkk dëkk bi rawatina làmb El Hadj maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Max maa ngi lay fay. comme ni ma ko waxee lan moo waral sa jataay fii tey. waaw tout d'abord. man du ma ménagèru Tafatine man je si agent de Tafatine. Mm-hmm. suma papa euh, Mbaye Diour moom mooy ménagèru Tafatine. Mm-hmm. man boo xam ne ñun ñoo koy jàppale sama grand frère. waaw mm-hmm. loolu ñuy waral que àdduna léppay jeex te mënoo foo ba pare di toj ay bopp nit wala ngay ngay sànni nit wala ngay saaga nit wala di yàq parce que ñi nga xam ni nooy organiser programme bi jubluwuñ ci loolu jën ci jublu lu civilisé def ko ñëpp di ci seen bopp c'est la te je pense que dañu jóge ci ay feebar jóge ci problème ñëpp tëju woon pour nag esprit gën a am ouverture il faut mu def des fêtes mm-hmm. mais fêtes yi mu bëgg a def dañ ko bëgg def civilisation mais pas ak violence mm-hmm. waaw loolu moo taxoon tey jalis woote mm-hmm. woote ñu toog xool yan erreur moo am ak bu ëllëgee ñu war a def loo xam ni li am yéen xool yenn stratégie yu gën yi nga xam ne ci ci lañ jóge loolu moo war a jotam waaw jërëjëf xam naa danaa dellusiwaat ci yow boo ko defee damay jàkkaarloo rek xaan Bourkhane Bourkhane li ma wax li ma question mi posé hélas rek laa lay posé euh, dimanche ñu waroon a am jàkkaarloo diggante Tapha Tine ak Boy Niang incident yi fa am yëpp teg nañ ci seen bët euh, bi loolu weesoo lan moo waral sa jataay fii tey. auzu bi kalimaati laay taamaati min sharri maa xalaq ginnaaw bi nu sant àll julli ci Baay Laay ak Seydi ñu ngi nuyu ñu fi toog ñëpp di wax ni tey sunu jotaay bi. Euh, jotaayu waxtaan la jox jotaayu réccu li nga xam ni jàll na fi nga xam ni promoteur bi amul woon xalaatu sax ni xëy na événement yu mel noonu dana fa xew alors ba li nga xam ni xew na foofu ñu déploré delluwaat ci li nga xam ni moom moo fa nekk moo fa xewoon waaye nag ci waxtaan bi ñu waxtaan ci ñaari camp yi ak promoteur bi am nañu stratégie boo xam ne yaakaar nañ li des ci événement yi lu mel noonu dootu fa xewaat parce que toog di fàttalikuwaat yi nga xam ne passé na day mel ni li newoon ci ñun jeexul te ñun yàlla dafa def ñu nekk ay responsable xëy na loolu xale yi ñoo koy def mais tey jii xalaat bi ñu am tey jii mooy defaraat ba nga xam ni ñi nga xam ne ñoo doon yàq dootuñu am bunt bu ñuy yàqee loolu nag waxtaan nañ ci wax ba déggoo ci ñaari camp yi devant le promoteur promoteur bi aussi xalaat na ni dootul defati lenn sans mu toog waxtaan ak ñu seet yan stratégie la ñuy utiliser pour def suñuy événement mu nekk ay événement yu correct yoo xam ne parce que face to face du pour supporters yi moom moo amoon yéene population yi comme ni ko euh, El Hadj waxee ak stress ñu ñuy jógee ak feebar yeeg fi mel noonu tey jii mu fexe ba nga xam ni eh, au moins danañu am épanouissement mais puisque nag xale yi ñoom comprendre ñu loolu stratégie yi ñu jël ci kanam danañ ko def ba nga xam ni suñ ci warul bokk duñ ci bokk. suñ ci waree bokk tamit danañ ko danañ ko sauvegarder ba nga xam ni kenn du ko mën a yàq. loolu moo tax waxtaan nañ tey ji waxtaan mu am solo. déggoo nañ tamit ci kawi kàddu euh, di wax rek. li nga xam ni jàll na fi ñu ngi koy rëccu bu baax a baax a baax di wax ni yàlla bu fi loolu xewati eh, li des ci programme bi yàlla na ànd ak réussite ñaari mbëri aussi yàlla ñu yàlla ñu ànd ak seen sago ba jour ba jot ñu remplir seen contrat. waaw jërëjëf euh, pour loolu am na solo waxoon naa ko léegi ne nettali xuloo xoloo la mais teewul euh, wolof bu ne bu ndox tuuroo an baax a des ñi ne na nga yu rootiwaat mm-hmm. est-ce que jotul na pour mbër yi seen bopp. Mm-hmm. ginnaaw ba yaa moom succès bi yaa moom xaalis bi yaa moom tàccu yi bul nangu kiy jege di ànd ak yow di la ko yàqal. Hmm. est-ce que jotul pour mbëri di wax ak staff yi bala ñuy dem ci face à face yi ak yu mel noonu. waaw dëgg la Max xam nga dafa am loo xam ne moo tax gis nga CNG moom day jël ay mesures yu wóor ki nga xam ne moom xamu ko moom mënu koo topp mais ki am licence muy manager bi di mbër mi di école bi nga xam day affilié moom ci kooku kaw kooku rek la mën a dal. kon tey jii yi nga xam ne moom moo xewoon bërki démb même bu amoon ay loo xam ne euh, lu CNG di ne aussi suy dal ci kaw ñooñu am licence dong la mën a dal ñi am licence nag ñu war a protéger seen bopp ni ñuy protéger seen bopp mooy dañuy def ay waxtaan ci seen biir maanaam ay atelier wan ne képp koo xam ne da nga ànd ak ñun soo defee lenn ñun danañ la feeñal parce que bërki démb moo njaay gis nga ba ñu demee ay chaise ña dem chaise yi du woon ñu nekk ci digg géew bi mais ñu nekk ci géew dëgg géew la ñu sanctionné ba mu yegg ci école yi kon loolu il faut nit xoolaat seen bopp ñuy toog di waxtaan ci biir école yi préparation combat mbër mi am na ci solo mais toog ak fan club yi waxtaan ak ñoom ne leen lii su ngeen bëggee supporter seen mbër nii ngeen di war a def su ngeen ko doful dafa mun a am ay yoo xam ne mën na dal ci kaw mbër mi ba ñoom ñëpp ñu xam ni seen yooyu ñuy def amul njëriñ du apporter dara mbër mbër mi ambiance bëgg ci moom ñu koy supporter nekk ay xarit nekk dinaanandoo café dinaanandoo boisson bu ñu paree kenn ku nekk wax potentiel bi nekk sa sa sa sa mbër. yaa ngi dégg loolu la ñuy xaar ci ñoom waaye du da ay damm chaise ak sànnante ay xeer ak yu mel noonu loolu daal vraiment ñu ngi koy déplorer te ñu ngi wax ni que comme noonu nga ko waxee. dinañ jël ay dispositifs yoo xam ne bu soobee yàlla lii des ci programme bi loolu dootu ma amaat. waaw jërëjëf question bu joxal ma El Hadj moom ma delloo ko ko elage li ma laaj Tapha rek euh, li ma laaj Bourkhane ci laay ñëw ci yow est-ce que jotul mbër mi ginnaaw ba ñee dañ koy gunge rek li ci ëpp moom moo ko moom jotul pour ñuy wax ak di tànn ñan la war a àndal buy dem ci yu mel noonu. waaw mais loolu bi mu jotee dafa yàgg parce que c'est pas la première fois parce que actuellement soo xoolee année bi combat yi am dafa bari kon nag ku ci nekk war nga jël say garde anticiper. parce que combat yi ñëw yëpp dafa bari te bu amee organisation et méthode rek man je pense que yàlla mën nañu suturaal parce que làmb culture la làmb dafa nekk loo xam ni mooy culture boo xam ni benn culture Sénégal ëpp ko doole loolu amul c'est que ñii di yàq xamulu lan mooy culture culture amul amul lu bon amul lu ñaaw booy wane nag sa aada maam da nga ko war a waree ci fànn yu rafet boo demee tey ci dëkku tubaab yi booy wane sa aadamaam loolu rek nga leen di mun a impressionné munoo leen impressionné leneen lu dul si sa aada ñii di yàq dañu xamul lan mooy aada ak cosaan làmb aada ak cosaan la mu neex leen mu naqari leen ñii di yàq dañ leen ciy génnee mu neex leen mu naqari leen il est temps jeunesse su sénégalais yi jël ñëw seen ak seen conscience tranquille am concentration xam ni lii nit ñi di jël di xaalis bi di ko organiser pour bëggal leen la nit da ngay def lu yiw lu civilisé loo xam ni tey ku la gis naw la ci mais jël ay xeer jël ay pompe di pompe jël ay xeer di sànni di toj ay oto wala kii di di di jëm a gaañ moroomam wala kii sa morom boo ko gaañee mu dem hôpital da ngay jooy parce que wóor na ma ni yéene woo ko ko. parce que booy Niang ak Tapha ni nu nekkee ay adversaire man wóor na ma ni booy ñaa yéenewul tafaatin lu bon tafaatin Tine yéenewu ko lu bon mënul nekk benn jour la mooy jouru làmb ja yii di def nii di show nii yëpp ay show la rek jouru làmb ja Boy Niang ak tafaatin Tine nooy taxaw ci digg bi xoolante les yeux dans les yeux waaw et que le meilleur loolu moo am solo nanu jéem a delloosiwaat xel yi def lu baax loo xam ni bu kon buñ ko defee mu baax ñëpp gis ci seen njariñ mm. mais ak violence munoo am sérénité munul munul nekk waaw waaw jërëjëf joxante leen loxo yéen ñaar rek ba bala maa ñëw wane ne yéen moom jàpp leen dara ñi ngi jéggalu ci li weesu joxante leen loxo ñu doog a ñëw nag ma ñëwaat ci question li ñuy wax waaw non dañuy joxante loxo balaa ñuy joxante loxo non parce que combat bi mooy dañuy jéggalu lu weesu non weesu joxante leen loxo après ñu ñëw ci liy ñëw max joxante wane ne rek ñi ngi rëccu li wees dina li ñuy rëccu wees na kooku wàcc wax nañ ko mais dañuy wax ci combat bi. non maa ngi ñëw ci laa ñëw. waaw parce que joxante leen loxo ci li ñëw joxante waaw maa ngi ñëw combat bi ci laa ñëw. oui daanaka signature man damay def yéen signature fii ñu waaw combat bi dina métti dina tàng. moom <laughs> li mu bëgg xoolal li maa ko ci fekk si. ñaari ñaar ñaar ñi nga xam ne ñooy responsable ñooy njëkk a bëree d'abord. waaw ñoo mbëri doog a bëri. amul problème. li mu bëgg tey maa ko ciy jiitu te it ñu bëri bëri simple bëri dóor la ñuy bëri. bëri dóor amul problème. waaw jërëjëf euh, moo lay wan ne euh, diggante bi jàmm rek ci war am euh, ñoom noonu la ñu mel. seen staff yi noonu la ñu mel. kon daal ñii ñii gàmmo ngi ras déem da ci am ñoo xam ne mm-hmm. dañ ciy dugal lu ci bokkul. Mm-hmm. hélas suma jumul ñuy waajal nag beneen face to face ci semaine bi. Mm-hmm. ban waajtaay ngeen ci ban taxawaay ngeen ci war ngeen ci taxaw. waaw mais amul benn problème bu soobee yàlla. Mm-hmm. Mm-hmm. ñun li ñu waxtaan ak calis. Mm-hmm. Euh, mooy euh, aspect sécuritaire. Uh-huh. na ko respecté. parce que nit. looy def aussi. na nga respecté sécurité. parce que boo respecté sécurité bi rek. ñi fay ñëw seen xel day dal. dëgg parce que tey euh, Sénégal république la. booy def événement. Mhm. da ngay dem ci république bi. Mhm. mooy l'armée la mhm. police et la gendarmerie. nga dem solliciter leen boo leen solliciter. mais ñoom civisme rek moo leen fi tax a nekk. dañuy ñëw dañ lay accompagner dans les règles de l'art. te boo ko defee wax fa dëgg yàlla da ngay kontaan. waxtaan nañ ci aspect yooyu aspect sécuritaire. parce que lu am sécurité am réussite. waaw te bu soobee yàlla ñun ñu ngi pare yeneen. sorti yi avec sérénité ñëw def normal wane fa yar wane fa teggin bu soobee yàlla joxal ma Bour waaw Bour euh, ñu ngi waajal euh, dans la semaine beneen face to face ndax gis nañ ne keroog yow sànni nga ay kàddu booy ñaa wax na mais nam waxee sax nii ko ne ma sañoon sama adversaire day toog la may wax euh, mu man maa tontu. mais hélas bi mu ñëwee dafa mel ni daf ne moom it nanga wax ci ngelaw li te boobu nekku fa mm-hmm. <laughs> léegi kon yow looy waajal Bour waa xanaa euh, di préparer face to face bi nga xamante ni euh, pour pour pour euh, rectifier le tir. ndax comme bële amoon nañu ambition. ak nu mu demee. bi yaakaar naa ne ñaari mbër yëpp nañ toog. sécurité bi nga xam ne moo war calis dina ko préparer. en même temps nañ xool fi nga xam ni mën nañ ko fa organiser. te benn coow doom am. dinañu limiter aussi. le nombre de personne bi nga xamante ni ñoom ñoo war a accéder foofa. kon. xam nga Boy Niang moom bu ñu ne woon suba la combat bi pare na. bañ ko waxee programme bi. ni ko nii lañ ko bëggee nee naa la dafa dem foor ay ndëndëm. joxe ay moyens yu ko permettre pour ñi nga xam ñoo bëgg dem seetaan ñoo ànd ak moom. cinq personnes yi ko war a yi ko war a dar aussi ñooñu pare woon na ko. kon Boy Niang euh, face to face bii di ñëw. su ma yeggee léegi ba ne ko tel date la. date boobu pare nañu. mais liñ ciy ñaan rek yàlla suturaal ñu dooleel ñu ba ñu mun ko def euh, niñ ko bëgg a defee parce que ñun ñaari mbër yi jaaxaluñu ñu ñu jaaxal mooy ñu seen ginnaaw ñooñu nag dinañ leen bloqué ba bu ëllëgee euh, duñu mu duñ ñu mën a yàqal dara parce que li nga xam ne moo fi xew barki dem moo njaay su fekkoon ne ñaari mbër yi kese la kon loolu du am max mais nag ah ak xalaat bi nga xam ne moom la promoteur bi am ak ñaari camp yi nga xam ne ñoom ñoo toog waxtaante tey jii ba déggoo mm-hmm. ah dinañu utiliser ay mm-hmm. euh, stratégie yoo xam ni bu soobee yàlla la xewoon dootul xewaat mm-hmm. te ñun pare nañu pour ñëw def face à face bu neex boo xam ne day ànd ak fair play dina xumb te dina neex waa jërëjëf joxal ba élage élage li li buur wax loo ciy dolli non li sama grand wax waxal ci micro waxal ci micro sama grand wax moom nañ ko def rek waaw bu soobee yàlla ñu ngi ñun tam di ngi préparer suñu mbër. mu mhm. ngi ci entraînement am normal. Mhm. waaw bu soobee yàlla bu nu amaatee beneen programme. Mhm. Euh, dinañ li nu waxtaan tey fii ni noonu lañ koy doxalee. aspect sécurité bi ak aspect yeneen ak yeneen yi nu waxtaanee yëpp. ku ci nekk camp bu nekk nga respecté ko rek ñun bu soobee yàlla dañ koy respecté. waa jërëjëf euh, Thialis suba mais Thialis maa ngi lay nuyu. ngi lay fay Max. Euh, tey euh, nga woo fi Bourkhane di ménager booy Niang woo El Hadj muy agent wu Tapha Tine. Mm-hmm. ñu jógee ci benn face to face boo xamante ne nii donte ñu doon seetaan moom seetaan nañ ba mu jeex. ñi mm-hmm. toggoon ci télévision yi. Mm-hmm. mais gis nañ ne benn camp bi. tafaatin ñëwutoon ndax dafa amoon euh, violence bu fa amoon. Mm-hmm. tey nga woo ñaari kaa yëpp pour ñu waxtaan di waajalaat beneen événement. Mm-hmm. lan moo doon sababu waxtaan wi. waaw lu sababoon waxtaan bi max mooy euh, ñu sport dañ koy defar rek. Mm-hmm. te ñun ñëpp si sport lañ nekk. donc lamb sport la suñu aada la donc lu rafet rek mooy si mën a xew. donc naam bu fekkee ni xew sa kañ programme wu ko xëy na àndandoo yi nga xam ne ñi mënuñu lañ. encadré la mais ñu ñi nga xam ne ñooy kilifa yi sabab lii ñu ñëw war mën a toog waxtaan et je pense que ñu ñëw am nañ esprit d'ouverture ba yàlla def na waxtaan nañ ko waxtaan bu bu bu bu am maanaa te amul benn problème mooy wane ni tey jii li ñun ñëpp fàtte nañ ko mm-hmm. waaye léegi ñu war a waajalaat beneen face to face la semaine am na beneen bu war a am ci studio si ñaay ak ñaari open press mm-hmm. ma bëgg nga dellu siwaat ci ak it nag nan nga bëgg mbër yi ñëwee waaw événement yi c'est juste dañu profité def si benn planning programme boo xam ne dañuy permettre fii ba jouru làmb ji ki nekk xam lan nga war a def donc permettre aussi ñoom ñu ngi si préparation yu mag parce que euh, làmb ju mag la mbër yi mag a koy tëgg ñooy si sëgg donc il faut nga jox leen programme boo xam ne dinañ mën a xam ñoom na lañ def ñoom aussi te la ñuy tënku mën aussi gérer seen programme ñoom individuellement donc lu ñu jàpp mooy def benn face to face payant boo xam ne Maristes Ndiaye lañ ko bëgg a defee le 24 juillet. Mhm. samedi 24 juillet. Mhm. bu ñu fa jógee def ñaari open press boo xam ne benn bi tafaatin Tine Boy Niang mooy def le 2 open le 2. Mhm. le 2 août le 3 août Tapha def euh, open press. ki nekk sa fief nga koy defee. donc loolu yëpp c'est pour juste rek wan ni làmb ji làmb ju mag la. donc événement yi ñu si def doon événement yu war a mag. ànd ak sécurité te incha allah aspect sécuritaire bi dinañ ko jëlaat au sérieux ba mu ba mu ba mu ba mu ñëpp man koo teg bët. ban message ngay wax seen fans yi. waaw message bi seen mooy ñoom ñëpp nañ mobiliser wu. Mhm. ànd ak seen mbër jouru làmb ji. Mhm. ak supporter mbër ak préparer des événements yoo xam ne ki nekk sa fief yaa ngi ko fay def loo xam ne bokkul sa si Leewtoo mais ñoom dañ ko war a def pour animer seen fief yi. Mm-hmm. donc xoolaat seen seen seen parce que nit boo ko bëggee bay topp ci gannaawam rek war nga mën a xool ci image am pour wane wane image bu rafet. donc ñoom bu ñu xoolee seen mbër yi xool champion bu mel ni Tapha Tine xool champion bu mel ni Boy Niang bu ñu xoolee seen comportement rek ñoom bu ñu copier ci ñoom duñ juum. waa ca gis naa keroog fi ñu ko doon defee cosaan ak li ko wër euh, te dëkkandoo àq daf cee am. Mm-hmm. Euh, ñooñ loolu leen di wax parce que yeewee na nag ñu jégalu leen. waaw loolu moom Max je pense que ñi li ñu def fii rek la ñu def foofu. Mhm. mooy jéggalu leen parce que ay riverains la ñu ñoom sax yoon nekku ci. Mhm. mais dañ ko doon def aussi pour bégal leen. Mhm. far lii am. ñun dafa jur massawu leen ak jéggalu leen. je pense que même démb réunion ak TFM. ñu ngi def délégation pour seeti leen. xool aussi ñoom ki nekk la nga yàqule lu ñu ci mën a def incha allah dinañ ko def pour que ñoom ñëpp ñu kontaan. waaw jërëjëf kon euh, li may wax rek euh, di jéggalu. lu mu rëy rëy baax maa ko man kon ñu leen di baal ndax. bégal leen rek lañ ci jubloon mais di leen jox yeneen raad jërë ngeen léegi yéen ñett ñëpp ngeen waxoon non à la violence ñu joxante loxo. bu ko defee tas jataay bi. ba beneen yoon donc non à la violence. waaw non à la violence non à la <laughs> baax na jërë ngeen jëf bokk internet yi. <laughs> Fass jéggi na su yoon wàcc na jël na Tapha Tine dóor na a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang